salaamaaleykum soxna aji noo ngi lay nuyu soxna si noo ngi lay nuyu di leen dalal di leen siyaar ci seen bis bi nga xamante ni mën naa ne ñëpp leen ci ñee muy bis bu am solo muy bisu maam Cheikh Issa Diène ana soxna aji tey boo bëggee wax ak auditeurs yi nga xam ni ak téléspectateurs yi nga xam ñoo ngi seetaan télé Touba Zingonia yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci mbooloo moomu ci mbégte ak soññi soxna yi ci taxawaay bu ñu war a am ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey ay saa ndax lislaam ba mu dooree ba léegi fu góor ma saa taxaw jigéene taxaw ci wet ga defe naa yi doy na ci sëkk soxna maam jaara Buso ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen kon ana yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci soxna yi nga xay ni say moroom yi soxna yi nga xay ni bii ñoo bokk ci fédération Cheikh Issa bi ak ñeneen yi nga xam itam ñu ngi toog di taataan di déglu ngir jële ci bis bi loo xam ne bii danañ ko mën a jëriñoo soxna aji bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatulaahi yéen mbokku taalibe yi man la soxna Aji Mbooj nekk fii ci Milan ñu ñëwoon tey fii ci Pavia ci bisu suñu di sant sëriñ maam Cheikh Issa Diène lii ñuy def nag mooy di so di soññ soxna yëpp ndax kat biñ commencé liggéey bi yàggul waaye nag yàllaa ngi ciy dimbali ba yëf yaa ngi jëm ca kanam loolu nag mooy la sëñ Touba doon waxoon rek ay yëfam tànki gannaaw amul tànki kanam rek moom lañ bëgg moom lañ gëm moo war a ñu takku ñun ñëpp rek te du dara lu dul liggéeyal borom njëriñ kese moo ñu ñor. di soññiwaat soxna yi bu baax ñu gën a takkuwaat Pastef ku dégg suñu kàddu yi rek boo nekkee ci daayira bi nga gën a jàpp Pastef bu baax a baax ku xam ne yaa ngi koy dégg li te nekkoo ceet nga ñëw te xam ne ñun àndandoo liggéey. ngir nekk lu baax rek moo ñu ñor. waaw di ñaanal nag suñu boroom kër yi bu baax di leen ziyaare di ziyaar suñu sëñ yi bu baax. di ñaanal sëñ Abdou Latif Dieng yal na fi yàgg te wér di ñaanal sama sang ba sëñ bu Dieng yal na fi yàgg te ak sëñ si soxna soxna ah, soxna Mbène Dieng di suñu jëwriñ moom it ñu di ko ñaanal muy ko sonn ci daayira bi am ci pasteef lool lool lool lool loolu daal lañ ci doon wax ci kàddu yu gàtt di jéggalu bu baax nag parce que mënuñoo wax waaye yéene gi moom mi ngi fi Eh, Pastef get mi ngi fi donc yàlla nañu yàlla may wér ak kàttan bu ñu mën a liggéeyee rek yëf yi gën a jëm ca kaw rek. li laay war a laaj soxna si Ka mooy soxna Fatou Ka. waaw. dëgg la dëgg la dëgg la. wax dëgg yàlla xam nga ni waa kër sa Cheikh Issa mosu ñoo def ginnaaw kii lenn lu baax wax naa ko laa wax naa ko léegi dafa mel ni Cheikh Issa lépp lu baax rek da caa jël pee loolu moom ab cërima yàllaa ko ko jagleel li arab ñu xot tax si mu mel ni tey bi ñu yéen soxna yi seen taxawaay boo ko xoolee da nga koy gis boo ko xoolee di ko gis ci waajtaay bi ni ngi ko waaj ci bi sax naka noonu xéewal yi nga xam ne moom lañ xéewal bis te lépp loo xamante ne biñ fi ñëwee subaak tey lépp loo xam ne bi laaj nañ ko fi soxna yi ñoo jëm loolu gis nañ ko taxawaay boobu ñi nga xam ne taxaw ko kon loolu lañ bëgg lan moo waral loolu ba tax ngeen taxaw taxawaay bi ak ni ngeen waajee nii nga xam ne maa ngi tooy Sylvain naa ko ak yéen macha allah ndax soxna yi dañuy waaj wa tabarakallah yéen daal dafa mel ni daal bis bi boolewul leen sax dañu ko war a boolewul leen sax ay ay rëdd ak am na jël fas tabarakallah sama faat. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziare kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu di la ziare di sant nag ci sëñ bi laaj bi nga ma laaj. ndax ñun yàlla def na tànk yi nga xam ne ki nu yaakaar te ëllëg muy maam Cheikh Issa noonu la taxawee woon Pastef boobu la yàlla def ci njabootam gi def ko ci taalibe mi ba lépp loo xam ne sumb nañ ko dañ koy sumbandoo yëkkateendoo ko tegandoo ko loolu moo waral gis nga mbooloo mi fi tasee. ci soxna yi gis nga mbooloo mi fi tase ci góor ñi yàlla def ci ñu nag Pastef ba lépp loo xam ne rek wax nañ ko ci daayira bi moom yàlla day def ñun ñëpp dañuy àndandoo ni mu waree ñu doxee ko ci nii ndax xam nga maam Cheikh moom yàlla defal na ko loo xam defalu ko kenn moom moo ñëw ci dëkk ci jour bi sotti ci jour bi loolu nag ñu ciy sant yàlla bu wér a wér Pastef googu nag moo nekk ci góor ñi nekk ci ñun soxna yi yàlla nañu yàlla defal xéewal ak tawféex yàlla def ñu fekke ko ay ati at yàlla def ci xéewal ak yërmande ci darajey maam geen Diène ñu teew koy ati at ñoo ngi sant bu wér a wér kontaan nañ bu wér a wér ndax kontaan gi mënta paas tey jii lii am tey sëñ Abdou Latif yabal taawam ak i doomam kii nga xam ne tey mooy sunu yaakaar te ak ëllëg muy Cheikh Abdou Latif Diène mii gis nga ko sëñ Abdou Salaam Diène gis nga taxawaayam fii sëñ Abdou Salaam moom yàlla def na moom képp ku ko xam xam ko ci moom ci diine ak lislaam moom doxul ci dara lu dul diine ak lislaam kon nag ñun nan yokk sant yokk rafet njort te xam ni moom lii nga xamee ni moom la doxal dina dem incha allah rafet nañ ci njort yal na yàlla dolli xéewal ziar nañ torop kontaan nañ te du jërëjëf jërëjëf nga baal ma sëñ bi may jéggalu bu baax dañoo fàtte di nuyu suñu présidente soxna Kumba Touré ndax jigéen ñii nga gis ak Pastef gi lépp ma nga Sénégal yàlla def na nekku fi waaye li ñu sol muy artiste yi nuroo lépp moo ñu ko defaral tool ñu ko ba mu baax yónnee ñu ko fii Sénégal moom it ñu koy ñaana yàlla na taxawaayam yàgg yàlla na yàgg fi lool vraiment ay njabootam lépp mu sonn rek yàlla fay ko ko ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm jërëjëf wax dëgg yàlla wax yi kàddu yi am na solo lool yaakaar naa ne ku leen dégloo tam dina sawar déwén fu ñu defee bisu Cheikh Issa bi moo jiitu ca liggéey ba ndax tey bis bi moom wax dëgg yàlla ku fi ñëw sa xol set ku fi ñëwit gis nga fi Pastef loolu nga xam ne moo nekk ci Cheikh Issa nekk ci njabootu Cheikh Issa dafa daj ba ci soxna yi sax ñoom ñëpp loolu feeñu kon nag yal na yàlla fay gën di fay te yàlla gën leen a dëgëral yàgg yàlla bàyyi leen fi yéeg seen i borom kër jërë ngeen jëf kon ba léegi rek ci liggéey bi ñuy liggéey euh, waaw bisimilah bisimilah kon waaw waaw kon waaw jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi ba léegi rek ci liggéey bi ñuy liggéey nga xam ne teew nañ ci bisib Cheikh Issa jàmbaari lislaam jàmbaar joo xam ne bii lu waay gàtt gàtt gàtt ak dégg waaye dégg gàtt gàtt xam-xam dégg nga ba tàyyi ñu ne Cheikh Issa maanaam garab yi sax ak maanaam xer yi nga xam ni moom lañ sampan ci kër gi dajaa wax sëñ Tuubaa naa ko bu fàttali Cheikh kon loolu du caaxaan ku ñuy fàttaliku nag fàttaliku jaadu na waaye yaakaar naa Cheikh Issa yell na lool waxuma la di ko jàppal benn bis waaye maanaam weeri bisi ci at mi yëpp fukki fukki weeree ñaar yëpp danoo war di fàttali Cheikh Issa ndax fàttaliku Cheikh Issa ak jaamu yàlla la ak jaamu yàlla la ndax fàttaliku koo xam ne saa koo ko fàttalikoo dana la fàttali yàlla dana la dolliwaat sag ragal yàlla dana la dollee bëgg lu baax kon loolu fàttaliku kooka la sëñ Tuubaa wax rek salaatu sitta bi mat i sitta te tiibat mat saay day ñaanal yonent bi juróom benn weer juróom benn weer yi mu di ko tagg noonu rek la la jàppe woon ànd di ko loy kon bu ñu maanaam fàttaliku Cheikh Issa woo jullit yëpp itam loolu amal na leen ci njukkal amal leen ci can kon sëñ bi ñoo ngi lay jox kàddu gi nga yëkkati sa kàddu jëmale ko ci mboolem auditeurs yi. auzu billaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim barkab Sëñ Tuubaa sant sant sant sant koo xamante ni na am am am di xam ne Cheikh Issa moom jëmmula la joo xamante ni bi mu yëg Sëñ Tuubaa Eh, daa fekk mag ñi ñu bëree bëri ñu dugg fa waaye bi mu ci ñëwee ñëw Tuubaa fekk si woo day am positif boo xamante ne ni mu ci jëfee daa di mel ni moom ñi fi jiitu woon ñi fi jiitu am lépp am na am na ko moom tam ndax moom yëgul Sëriñ Tuubaa waaye bi mu saaree daa liggéey liggéey bu gàtt àgg ci mbooleem kilifa yi yëpp. ñu am li am li am moom moom moomu nag euh, moom Sélésar dafa am ay ay jëriñ yoo xam ne ñoom la ànd na ci ab liggéeyam jëriñ yooyu nag ñoom ñu ngi toog nii ñoo toog sa sut wet moom ngeen jàng loolu nii siin seen sët ñooñu nag ñoom jàppaloon Cheikh saa ci ab liggéeyam ba nga xamante ni moom itam li mu yéene woon lépp Sëñ Tuubaa liggéey ko mu jëfe ko lu lu kawe njorti ñëpp nga xay tund tàggaar yëpp ak tundu Kajoor yëpp topp Cheikh saa soo gisee lu lu li ko li ko sabab mooy possible bu Cheikh Issa amul rek la liggéey rek ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoom ñoo ko jëkk ñoo ko jëkk topp itam ñu ñu gën a soññ seen i njaboot ci liggéeyu Cheikh Issa bi di soññ mbooleem bokki taalibe yi ñu ñu gën a takku ci ci ci fédération bii ndax dañoo bokk ci soññeekat yi moo tax soññee lañ maa def ñu gën ci takku gën ci góorgóorlu saa buñ deetee woote ñu teew kenn ko di ci baax a baax waaye mën nga di ko def asalaam euh, mbokk mi sëñ sëñ ah, ah sëñ. Talla mbay nekk ci Milan. waaw naa am te wax nag. bi am na solo lool kon nu toog borom xam-xam sëñ Saliou jaay doon koo xamante ne ñëpp xam nañ ko muy jëwriñu fédération euh, maam Cheikh Ibrahima Fall toogal tam sunu sëriñ sëñ Alioune euh, sëñ Alioune bokk ci njabootu sëñ Gañ Tandine wax naa ko léegi yaakaar naa ni bokk na ci bu doonte ni ab armée la général yi nga xam ne bii ñoo daran Cheikh Issa kon sëñ Saliou tey yaakaar naa ni damay wax ni fàttaliku waa ji baax war na saa su nekk waaye ndax bu ni. luñ mën a wax la mën nañ ni la sëñ Tuubaa waxam ni yonent bi alayhi salaatu salaam juróom benn weer yi dama koy ñaanal juróom benn weer yi dama koy tagg waaye tey sa Aïssa waxuma la benn bis waaye bis bu nekk bis bu nekk ci fukki weer yi ñaar waris na koy fàttaliku ndax fàttaliku bi da lay dolli ak ragal yàlla da lay dolli xiirtal la nga bëgg lu baax dalay doon ngay xalaat ëllëg yowmal xiyaam dalay lay dolli nga fàtte bañ a jàpp àdduna fañaxtisum àdduna du la jariñ dara loolu lépp dafa bokk ci fàttali ko mel ni Cheikh Issa ndax yàlla dafa wax ak yonent mi ko fa sakki ina faati dikra day dakkaru man yaxsha kon sëñ euh, Saliou rek ñëw nga tey ci bis bi tee fi en tant que jëriñ waa kër maam Cheikh Rafal waaye ñëw fi nag ngir tàng si ci leer yi ak xéwal yi nga xam ne bii mooy dotti ko fi tey ci jataay bi sëñ Saliou Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ Aliou ñoo ngi lay nuyu baax te di la ziara di wax na rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokki julli di mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Saliou Ndiaye moo leen di nuyu tey ñaanal Cheikh Abdou Latif Diène suñ borom yàggal ko fi lool ci kanamu ñenne ak mbooleem njaboru Cheikh Issa gépp ñu ngi leen ñaanal waaye di ñaanal sëñ Abdou mi nga xam ne mi ngi fii mu teewee jotaay bi Cheikh Issa moom it ñu koy ñaanal yàlla suñ borom guddal fanam wéral cëram ba li mu yéene ci lislaam suñ borom def ci kaw njottu di siyaare mbooleem fédération bi nga xam ne ñooy fédération waa Njenne ñoom ñëpp teg ko ci loxo sëñ Sidi Diop ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare ak mbooleem ñi mu ko àndal di wax nag sëñ Aliou euh, bis la boo xam ne bis bu màgg la ndax la bis la boo xam ne euh, bisub jaamu yàlla la waaye bisu ko nag la comme ni nga ko waxee rek ndax fàttaliku dana jëriñ ab jullit kon bés la boo xam ne kenn ku nekk ku nekk ci yoonu murid wala julli rek war naa teew ci bisub Cheikh Issa bi ndax day jëmm joo xam ne la ko maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaar rek doy na ñu xam kon kenn la ci jàmbar Serigne Touba yi ndax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa xoon ne Serigne Touba la ca gënoon lépp man Cheikh Ibrahima jël naa kenn ëppale wu ma ci njëlbeenu Serigne Touba daal di wax na sama rakk ju baax ji sëñ Aïssa mujjug Serigne Touba day la ca gënoon ak la ca ëppoon Cheikh Aïssa jël na ko. kon ñoom ñaar gis nga dañuy jàngale ne kon dañ leen a war a roy ci lan moo tax lan moo tax ñu jël la gënoon ca Serigne Touba loola li muy tey mooy ñaar ñooñu dañoo nekkoon ñoo xam ne. dañoo bëggoon nu Cheikhul Khadim al mahabba cofeel gi nga xamne mo moo lañ amoon ci sëñ Tuubaa moo leen yobbe li ñu am seen ciir rëy yoy mo leen ko may waye Cheikh Abdou Issa seigne Cheikh Issa da ca booloon ak ñewante yi nag moom ñeewante sëñ Tuubaa ñaar la bolal moy bëgg seigne touba ak ñewante seigne touba ba loolu tay ji moko ko jural moo jural li nga xamne moko moo ko jural tey ji kon jàpp naa ne mbokk yi war nañu jàngat kan mooy seigne aïssa day jëm jo xam ne suñ borom da koo waajal da waajal ndax wax nañu kéré bu ba mu joggé jëm seigne sëñ bam ba mu ba ci wona tok toog ci genn kër di noppalu ru yi nga xam ne ñoo war a ànd ak moom ñëpp ñëw ñu ko rek jëbëri ci moom ci ko bis boobee kon kooku mel na ne kon ku amu cër la ci suñ borom waaye kuñu ñu la ci seigne touba kon kon dafay laaj kon bu ñëwee ñu jàngat kan mooy seigne aïssa ak lan moo ko may lii kon kon li ko may lii mooy lenn rek la mooy euh, gëm seigne touba don ko ligeyal ci lan ànd ak sellal sellal goo xam ne dara lolu moko may li nga xamne tay ji mom am ndax na la jox ben ben exemple rek ci da dafa ñew ci Serigne Touba da kay wax ne ko mbacke de dama beggon nga mayma ma ñaar la lay ñaan ñaar la lay ñaan Serigne Touba nako ban ak ban la mu nako dama la ñewante lol ci mbolo mi ni ñi jume ci yow bo joge jëm ci jakka ja ma beggon la defal fi aw yoon xamne dañ koy defar ba kenn du la mën dal sa kaw ndax ñeewante gi mu ko ñeewantoon sëñ Tuubaa nag ak ban mu ne ko defar la néeg boo xam ne danga nga fay xalwatu di fa wéetal suñ borom ñaar yi laa la bëggoon a defaral sëñ bi na ko yoon woowu day du fi du xaj mooy yoon mi ko bëgg defaral ak fegal ko mu dem ci jumaa mu ne ko loolu du fi xaj waaye may naa la ndigal ci kër googu nga bëgg defar nga defar ko waaye na ko defar fële ci dëkkam bi fa mu nekk si Isa dem di defar kër googee bi nga xamee ne dem na di ko defar ci boppam ba toll ci wàllu finition fi la sëñ bi wàccub liggéey te sëñ Tuubaa da ko waxoon ne ko defar ko saa su yeggee dana danaa ñëw fekk si la foofee sëñ yi saa defar ko ba kër ga mel na war a mel la ca war yëpp def ko mu dajale dong ya wax na leen yéen day sant naa la gëm ndax jox naa leen ndigal defar ngeen ndigal dama ko bëggee woon sama xol seet na sant naa la gërëm leen am nga ngeen ngërëmul sëñ bi waaye daan am naa jaaxle ndax ki ma ko digaloon day dafa waxoon ne su noppee day dinaa la fekk si fii te xaw ma ku may jox caabi yi te wéji na loolu day moo ma indi sama jaaxle gi daal di ñaanal mbooloo ma ne leen am ngeen sama sant am ngeen sama ngërëm ak ngërëm yàlla ngërëm Sëñ Tuubaa mbooloo ma dem Cheikh Issa toog foofee mu toog ak jaaxleem fa la nekk ba julli timis fekk ko fa mu duju daal di julli timis bi mu jullee timis ba noppi nag moom Cheikh Issa bi mu gëstoo gi gis Serigne Touba ci gannaawam Serigne Touba na ko Issa lu ma la wax naa ko lu ma wax lu ma wax naa def maa la naa la fekk si naa la fii Serigne Issa daal di xaw a jaaxle sëñ bi daan na bëri ca ca njaxlaf ga daal na ko bismillah nañ dem mu wër kër gi. Serigne Touba jiitu Serigne Issa topp ci gannaawam mu dugg ci kër yi néeg bu mu dem daan na ko ah, ak Issa Issa day noon la ko bëggee woon di dugg ci kër yi di dugg ci néeg yi ba néeg yëpp yegg mu ne si néeg bi nga xam ne fi la war a xalwatoo mu àgg fa. bi mu fi agsee daal di toog moom Cheikh Issa ku xamoon Sëñ Tuubaa la defar néeg bi li ci war lépp mu def ko ca lal yaag maanaam si jaar gi muy julleeg daa yak xalima yaag yëpp mu defar ko macha allah sëñ bi di ko xool na ko xàkk sa daal koy dénk nag foofu Cheikh Issa nee na Sëñ Tuubaa jox na ko ñetti xam-xam yoo xam ne nee na bu bu Sëriñ Tuubaa diir si waxtaan jamono dana liggéeyal Sëñ Tuubaa li muy màggat màggat ba yàppam yi ak dara dana topalo ndax xamu woon kan moy seigne touba grand bi lako ko xam nako jox nako ñetti xam-xam yo xamne moy benn bi nenako ko la nga xamal ko ko benen xam-xam bi nak ñi nga xamne bokk pas-pas seetal la jëna nga diisoo ci benen bi des nak man yow yonal bi seigne touba ah, suñu borom boo ko kenn xam danako Isaa na la dénk nag daanaka suñu borom bi mu uh, jamono daf uh, daf ma yebal waye manako dama bëgg dem ci nasaraan yi ci islam suñu borom xamako nako Muhammadu na xam ne dey bi ma sakkee lislaam bi ma sakkee adduna ba léegi ñooñu maa leen sakk waaye na nga xam ne su man maa namu ci ñoom loolu maa namu ci ñoom loolu mosuma yónnee ab yonent ci ñoom ngir ne dafa am lu ma namu ci ñoom boo lëgee moo tax ma bàyyi leen noonu sëñ waa daane sëñ saa naa la dénk nga dénk ko sa njaboot mooy sa njaboot na nga wax nañ mooy tënd ko tubaab bi buñ leen roy buñ leen toppandoo ci dara kon loolu lay dénk seen njaboot gi ndax nee na wartandi ko tubaab yi ak moytu leen ak sori leen doy na jaamu yàlla kon na sax ci ak taalibe te wax say taalibe ñu moytu loolu kon Cheikh Issa day jëm joo xam ne lenn rek la rey woon muy ak taalibe ak taalibe la rey woon te la ko may tam mooy bi ñëwee dafa dann magam ja muy maam Cheikh Fall ñoom ñaar ñoo bokk benn pas-pas sëñ Tuubaa mooy dañoo bokkoon aw doxin ndax sa mag ju baax ji ko daan wax sëñ maam Cheikh Fall na xool ñoom ñaar ñooñu ñëw ñëw ci moom ñu toog mu la yéen am na jëmm joo xam ne dana dana jël seen yaani jëmm yi doon doon kenn muy kan muy jo muy muy sëtam ba muy kan muy sëñ naar ci loolu ci la waxe ree waxam juree joojee daa di woo sëñ Aïssa na ko day dama bëggoon jël doomu maam Serigne Fall jox ko jox doom muy sëñ Mouhamadou Lamine Ba muy sëñ Mouhamadou Lamine Bara daal di mu ne ko day mosoo maa wax lu neexee noonu mu woo maam Serap Fall ne day daam lu ma su bëggoon mu ne ko daa bëggoon jox ko doomu Aïssa mu ne bi day mosoo wax lu neexee noonu daal di soxna suñu soxna Soda mooy taw maam Serap Fall jël ko jox ko ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ko gërëm ci lañ am ki nga xam ne mooy sëñ naar jenn sëñ naar jenn doon jëmm joo xam ne dafa taxaw jëmmi maam Sëriñ Fall jëmmi sëñ Aïssa taxawaay taxawaay boo xam ne ñëpp jëm na leen kon euh, jëmmi sëñ Aïssa day jëmm joo xam ne kun mat jàngal la ndax teel bi gi mu yoroon ak lantinor la woon lépp lu am da ko jox sëñ Touba mësatee dara mësam ne kon jamono dafa laaj tey jii ñuy jàngat kan mooy sëñ Issa ndax moom kenn rek moo ko ñoroon muy sëñ Touba mësa am geneen bëgg mësa am geneen yitte kon bisam bu ñëwee war a ñoo jàngat ci taalibeem goo nga xam ne ci la nekkoon nga xam ne daawul am sago ci sëñ Touba ndax bëggan gi mu ko bëgg ak ñeewante waaye nag la gën a yee mooy da ca xiirtal ak njabootam xiirtal ak taalibeem kon daal sëñ Issa yàlla a wax bari di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex bañ fekk at yu bari bari ci ba mënti jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah mbokki auditeurs yi yaakaar naa ñëpp a bég sëñ Saliou yalente woon waxtu yaatu ba tey li nga ŋoor naam danga fi ñëw ngir tàng si waaye am na loo ŋoor àndaale ko ngir sotti fi wax dëgg yàlla li nga fi eh, rotal rek eh, mboolem ñiy déglu kenn ku ci nekk mën nga cee jariñu ren ba déwén te du jeex tàkk kon noo ngi ñaan yàlla gën laa sàmm. jéego bi nga taxawaay bi nga taxaw ci diine islaam yàlla mi kàttanub jaalam yal na la kàttan te musal na ci ndog ba loo yéena liggéey sëñ Tuubaa rek yàlla dafa la kàttan boo xay ne bii dinga nga ko mën liggéey jërëjëf sëñ Saliou kon ba léegi rek ci jataay yi ñuy toogal ñu toogal suñu kilifa ñu toogal suñu kilifa sëñ Aliou Tandine wax naa ko sànq yaakaar naa ni boo nee ku sant Tandine kër Cheikh Issa bokk nañ ci buñ ko dee natt ci ni jamono gën a xam mooy général yi Cheikh Issa ndax mag ña kat ñoom Cheikh Issa moom kenn mënu koo jot waaye ñoom it kat joxoon nañ seen kéemtalaay kattan Cheikh Issa seenug dund seenug faatu seenug yëngu seenug dal seenug lépp Cheikh Issa lañ ko jox ba am na mbokk mu ko wax sànq mu wax ni waxuñu sax Cheikh Issa ci boppam waaye ñi Cheikh Issa defar rek ñi Cheikh defar Cheikh Issa defar rek doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ay royteef doy na sëkk ci ñoom ñu deen woote ay bis di leen fàttaliku ndax kenn koo ci fàttaliku rek dana la fàttali yàlla kenn koo ci fàttaliku rek boo di ab jullit aqiqan nga di nga am loo xamante ni di nga ko yëg ci sa xol ndax tey ku doon dugg ci saal bi nga dugg ci saal bi boo xo bi ngay génnaat am na loo bu fekkee ne lu ñuy peese la di nga am ak loo xam bi tey wóor na la nii bi ngay génn ci saal bi génnaale nga loolu moom amul werante ndax boroom xam-xam ni ñu ko waxee dañuy wax ni ngëm dina yokk ngëm dina wuute dina dina dina wàññiku ñii ni déedéet ah kay ngëm du yokk ngëm du du wàññiku waaye lañ gën a lëngal mooy ngëm dina yokk ci kem nit ki ni muy jëfe lu baax kem nit ki ni muy jëfe lu baax waaye yaakaar naa tey bisu Cheikh Issa bii dagg la dangaa mën ngaa judd say maam ak say lépp sa deret lépp di Cheikh Issa waaye tey boo fi ñëwee dina am mbégte moo am moo xam ne bi sa bi danaa da doon fees del ci lépp loo xam ne bi Cheikh Issa yaakaar nga ne bëggu Cheikh Issa la wala njab njabar Cheikh Issa bëgg lool nga def lépp te yàlla ak tey xañ na mbégte moo am ci Cheikh Issa kon sëñ bi duñu mën a guddal kii la noo ngi jégalu bu baax baax toogaay bi ñu toogaay ak yéen ci kaw te dara waralu ko rek jataay bi noo ngi ko jégalu bu baax a baax a baax waaye di sàkku ci yéen ay ñaan ak kàddu ndénkaan ak kàddu soññe yoo xam ne itam ñun ñi taalibe yi nga xam ne xañ ne bëgg nañu ñëw te mënuñu ñëw di toog di seetaan rajo Touba si Ngoñe ak euh, euh, YouTube bi ak Facebook bi ci télévision bi lu yoo xam ne dina bàyyi ko ci yéen ñi ngeen xam ne bii euh, seen waajur ya seen maam ya bokkoon nañ ci jëwriñ Cheikh Issa jërëjëf sëñ Aliou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare lii maanaam mbégte ak kontaan ak di ndokkeel ñëpp ak di sant ñëpp ak di gërëm ñëpp moo tax daanaka may toog fii di wax ci rajo ndax man mënewu maa wax waaye mbégte mu ma am tax lu ngeen lu ngeen lu nit bëgg ci man su ma ko mënut tamit danaa ko jéem moo tax may jéem a wax waaye du mu du lu ma man loolu nga wax ci Cheikh Issa maanaam fu mu toll woon loolu ngay wax am na ci teel bi mu doon wax naa bari na kuñ may tëkkaleel waaye boo boo ko peesee boo ko peesee diw mu wat ko bari na ko ñu may tëkkaleel koo xam ne boo ko tegee place ci diw mu wat ko daana ko wax waaye Cheikh Issa Daoud ñoo ngi jéggul waaye Cheikh Issa Daoud Daoud wane boppam maanaam jëf rek jëf rek la xamoon jëf rek Daoud wax day jëf rek ca du boole wax jëf jëf ji nag mooy dem bay wane boppam moo tax ku tedd ki dem ba naan lu ma xool rek mu may fàttali Cheikh Issa Diène ku tedd ki dem bay wax loolu. ndax mu am daana sëñ Moussa Ka mas naa ñëw këram yando fa mu ganale ko mu taalifal ko mu defal ko ab jimbilang maanaam taalif ko téere bu mag boo xam ne si lépp da ko olofal ci Cheikh Issa bi mu demee da koo woo ba ñenn ñi neena naan da koo da koo gas suul maanaam ba tey kenn tegu ci bët ba ko gi beer dalee kii ko sant ko gërëm ko ba mu pare da koo kii ndax nee na suma sama waaju waaye kër bëgg nañu ma bëgg ngoo xam ni buñ ko gisee dootuñu jàng xasaay te jàng xasaay rek moo xasaay rek rek moo jar a jàng te buñ ko gisee buñ ko gisee dana dem ba dootu jàng xasaay yiti ndax bëgg guñu ma bëgg kon nag daawut wone da ku ñëw rek sëñ Touba rek lay wone waaye daawut wone boppam waaye sëñ Touba fay boo gisee bis bi tey ji xam ni sëñ fay na ko gis nga lii waa këram noonu lañ ko gëmee noonu lañ ko gëmee moo moo moo waral lii maa ngi jégalu bu baax nag damaa mënta wax ci day barkeelu rek ndax euh, lii sax dawuma ko première fois ma def ko waaye tey jii lu waaye bëgg suma ko mënut tamit dinaa ko jéem ndax sama xol bi dafa sedd ndax nit ñi niñ ñëwee ak fee ñu fa bàyyi tamit ñoo ngi nuyu waa Raween ndax dañ fay sant sëñ Touba ñu bari fa lañ fa nekk waaye ñu bari tamit ànd nañoo ñun ñëw ci kaar bi ñu nekkal leen foofu ñu nekkal ñu fii rek ñu ngi leen di siyaari ñoom ñëpp di ñaan képp ku fi ñëw daal loo am ci aajo rek yal na ko yàlla faj ci barka maam Cheikh Issa Diène waaw ñoo ñu ngi koy ñaanal ñëpp daal suñu xol sedd na guy suñu xol dafa sedd ba mënuñoo wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf sëñ Aliou Euh, wax dëgg yàlla ku dégg kàddu gi rek xam ni xol moom bu feesee rek fees na te xol mënta def jaari barke kon nag noo ngi ñaan rek ñaan yi nga xam ne yaa ngi ko ñaan tibbi sa xol euh, ci seen barke maam yu tedd ya loolu ni nga ko yéene rek yal na fekk fu mu di doon ak fa nga nekk rek faj aaji saayir mbar jërëjëf tànni jërëjëf ba léegi rek ci détail bi ñuy amal ngir bisu sa Issa bi di dalal ay kilifa yoo xam ne bi ñu ngi bàyyi ko ci gox yi feccantikoo yi Euh, yaakaar naa tey fii ku fi ñëw ci biir kaar yi rek defe naa war naa kaari yi takk na lool lool lool ndax saal bu toll nii mbooloo mu toll nii li leen fi andi ab lim la ci ay kaar ñoo ngi toog kenn ci jëwriñ yi muy sëriñ daam ka bàyyi ko janawa ak waa janawa yëpp sëriñ daam defe naay bisub Cheikh Issa ku fi ñëw tey bég la mbég moo xam jégg na dayoo wax dëgg yàlla euh, ndax woote ñu wuy si la rek dafa doy sëkk waaye waxuma la woote ñu wuy si la waaye nag nitu yàlla nga wooteel ko mboolem jullit yëpp ñëw nit ñi bi ñu ñëwee kenn ku ci nekk la nga man yaa nga ci ñu am xam-xam ñu ngi géwli seen xam-xam ñu yor seen i ñaq ñu ngi génne seen ñaq kenn ku ne daal bis bi boo ñëwee da ngay gis ni jaww ji yàllaa na ana yan kàddu ak yëg yi yëg nga te jëmale ko ci mboolem auditeur yi auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim naa bu nu sant yàlla julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Serigne Touba bu baax di sant Serigne Xeesa Dieng di nuyu mbokki julli ci nduru Serigne Basirou Ka ak sëriñ Mor mbay mi nga xam ne mooy président Touba Janawa ak Serigne Cheikh Diouf ndax ñoom ba màggal gi taroo ba léegi ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi bàyyi seen i yitte bàyyi seen lépp ànd ak ñun ak soxna Kanafaal mi nga xam ne moo jiite ci soxna yi moom it ànd ak ñun lépp bàyyi seen i yitte bàyyi seen lépp ñëw ci liggéey bi Serigne Touba Cheikh Issa bi ndax damay wax ni chaque jour Serigne Touba mooy xëy mi ba ci daayira waa kër Cheikh Issa Diène saa yu dajaloo dama naa leen képp koo xam ne taalib Cheikh Issa Diène nga war ngaa passeefu ci daayira Serigne Touba bi ndax Serigne Touba Cheikh Issa dafa am ab cër boo xam ne ci moom ngir lan pasteef lenn mooy ko lu dul pasteef kon képp koo xam ne yaa ngi waa maa ngi lay soññaat ci daayira Serigne Touba bi nga xam ni ginnaaw lépp Serigne Touba la kon ñun ñu gën a pastewaat ñun ñi nga xam ne Serigne bi nga xam ne Serigne Xeesa Jenn fépp mu mosaa taxaw haddiyam da daan ko wax bul fàtte Xeesa loolu lu ko may mooy pastefam kon ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee Janaba maa ngi soññiwaat ñun ñi nga xam ne waa daayira Cheikh Issa Jenn bi ñu tënkuwaat ci daayira Serigne Touba bi fonkat liggéey bi bu baax a baax ci ndigalu Serigne Cheikh Diouf ak sëriñ moor Mbay ci lépp ñu teg ko ci loxol Serigne Bassirou Ka mu teg ko ñu ndax ñun dañu ndaw lañ rek ñu yebal ñu bu loolu weesu ñu ngi sant soxna Kanafaal moom it wax dëgg yàlla ko passé fu jëlee sunu yaay la sunu bàjjan la ak soxna maam jenn ak soxna Ngone Ndiaye ñoom it wax dëgg yàlla berne yi fi ñu jëm si yëpp ñoom ñoo ko defar te laaju ñu ci lenn kon ñoom ñoo ngi leen di ñaanal ba lépp luñ bëgg sëñ borom eggale leen ko ci barkeb Serigne Touba di santaat bu baax nag ndax bis bii bi bisub tawféex la ndax euh, tawféex gi Serigne Touba dafa leen Serigne Xeesa dafay feeñ ndax wax dëgg yàlla lépp loo fi gis rek kenn koo koo fi bi ci njàng meek waxtaan week dal geeg lépp wane wu na ci jotaay bi kon ñoo ngi santaat bu baax di leen ñaanal lépp luñ sàkku fi tey ak lépp aaju fi waaye indi rek yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba Serigne Xeesa Jenn fa saafara ci barkeb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkeb Xaadim Rasul barkeb Serigne Xeesa Jenn ñu koy ñaan ci daraje Serigne Cheikh Alim nag ndax moom mooy suñ bunt ci Serigne Touba jërëjëf. wax dëgg yàlla Kapola Diéry kàddu yi am na solo lool kàddu yi sell na lool. kàddu yi itam matale na yaakaar naa képp ko xamante ne nii waxuma la waa janaba waaye yaa ngi ci fédération Cheikh Issa sonnee nga kàddu yooyu loolu war na motiver ba ku jàpp moom itam jàpp ku jàppale ko gën sa jàpp ndax dama wax ni ku am kilifa gu mat kilifa kët war nga foo taxaw fu ñu la si dégg ku la xam xam ne yow mii kat am nga kilifa gu mat kilifa kon nag soññe bi jëwriñ ñi moom li ñu war a mu kon soññe bi yàlla na dugg ci noppi ñi nga xëy ni Euh, li ñuy wax duggul ci na yàlla defal dégg ak topp jërëjëf sëñ daam ci euh, taxawaay ñoo ngi koy taxaw rek ak di dalal gan ñi nga xay ne bi ñoo ŋànk fédération Cheikh Issa bi kii ñu toogal nag kenn la koo xam ne bi ci gox bii ñu nekk muy Pavia julli yëpp a ngi koy sant wala sénégalais yëpp sax ndax wax nañ ma ne lépp lu jëm ci administration Euh, bokk na ci ñi nga xam ne bii ñoo koy taxawee yàlla nag mu seet kenn ku ci nekk lam la jagleel nga mën caa jaamu yàlla jaamu yàlla du caagi nag julli rek du jaagi nag woor rek du jaagi nag natt asaka rek waaye du déedéet ndax nun kër ki ni fi dajale muy seexul xadim danaan ñaan yàlla yàlla nag ma xiir ma nekk koo xam ne damay liggéeyal jullit yi liggéeyal jullit yi te defe naa aw turam wi ci gën a siiw mooy liggéeykatu liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi waaye di liggéey liggéey boo xam ne di ci séentu génn pay buñ koy pay ci àdduna waaye payu yàlla kon yow bu la yàlla baaxee nga doon koo xamante ni yaa nga nekk senegal yi fii lépp loo xam ne jëm nañ seen wàllu àdduna nga ci taxaw rawatina nag yàlla dafa la tawféex ndax wax naa ko léegi bis bii di bésib Cheikh ku ci taxaw rek lu toll ni tarfatan yi ni war ngaa sant yàlla baax a baax ndax day koo xam ne yàlla da koo nungul moom Cheikh yàlla da ko nungul léppam yàlla da ko nungul dafa naa loolu feeñ na ci ci kaddu yi ci fi jot rek ci taalib yi ci saal bi dëgër gu mu dëgëran ak taxawaay bu mel ni taxaw ngeen ko ci ñu demee ni yéen ba yàlla dogal saal bi ngeen jo ngeen ngeen jot ci danoo bëgg rek nga yëkkati ay kàddu yoo xam ne doonte ne danga koy tënkit mu jëm ci te sénégalais yi rawatina julli yi rawatina waa kër sëñ Cheikh Isha. salaamaaleykum mm, ñu ngi sant bu baax wax dëgg yàlla di. di leen sant bu baax ndax wax dëgg yàlla lii moom euh, ak jàpp ndal gu mag la daal ñun noonu la ñu ko mën a jàpp ñun nag alalu sëñ bi leenu rek ba tax na fu mu nu fekk rek lépp lu luñ ci mën ci kàttanu yàlla muy lu tuuti lu bari dañ koy def te xam naa ni nit euh, ñun dañ ci jeego rek waaye sëñ bi moo yor lépp sëñ bi mooy mootali lépp bés bi nag dafa nekk bés boo xam ne wax dëgg yàlla bés bu ma dee def cant sëñ Fallou fii ci saal bii bu dend ak moom la mbokki taalibe yi ñëw gis saal bi ni ma kii de dañuy confédération ren bi bu Cheikh Issa Diène bi noo ko ayee bëggoon nañ kat mën a am saal bi man leen a ah, man de dama yaakaar ni man ci li ma jàpp man Souleymane Mangane dama jàpp ni de lépp lu baax lu nekk waa Kër Sëñ Tuubaa la loolu nag moo waraloon jéego yi nu ciy jóg mu dëgëroon lool nag waaye li nga ci wax léegi tamit dafa am solo sëñ bi wane na boppam ndax lii xam naa ni du ngóora du ak bëri pexe du ak njàng mais daal tolloon na foo xam ne tey jii ba jamono yi may waxante ak yow nii juróom-ñaari journal dugg nañ fii ci ci suba si pour seet ndax xew-xew bu mel ni mësul am ci province bi yow kon nag bu ko sam borom awalee sunu loxo ci mbokk taalibe yëpp wax dëgg yàlla nu defe ko fii tey le 16 septembre bii 2017 dafay wane ni liggéeyal sëñ bi rek am solo te man kat jàpp naa ni lii lu nu war a mën a taxaw ñun ñëpp la bokk ko taxaw waaye nag am nañ ci beneen facette bi nga xam ne lu am solo la ndax ginnaaw jafe woon na jafe goo xam ne ndax tey jii fii nu nekk tey yii dañ ko waroon jàpp parce que tey feetu dëkk bi la dañ ko waroon jagle fi nga xam ne mooy seen joosri yi foofu lañ ko bëggoon loolu moo waraloon nu bëggoon toxal suñu bés bi waaye sëñ bi wane boppam ak dooleem conseil d'administration ba nu nekkoon nag mu jàpp mu metti woon lool ndax fukk ak ñaar yëpp fukk yeeg fukk ak fukki pet nit ña administration yi ñoom ñëpp dañu contrôle nii ñaareel ba sindoo ko ba taxaw ànd ak man yàlla def mu def lii moom daf lay wan ni liggéey sëñ bi rek am solo moo tax daal man ma jàpp ni lépp lu nu fi ñaan yal nañ ko sam borom nangul te jéego buñ ci defit ku ko ci defe ku ko ci deful yëpp yal na la ko sam mborom des bi fay Cheikh Issa Diène moom kenn ku nekk xam na na na meloon ci sëñ bi kon nag loolu tey lii daf koy wane rek moom daal li may soññ mooy daal ah nu ngi sant yàlla daal bi nu sa borom nu xiire nuy liggéey ci lii fii nag wax dëgg yàlla mbokk daayira Pavia beeg nekk mais lepp ben la ndax cant seigne fallu guin fi def ñoom ñëpp ñu taxaw wax deug yalla ba taxna tamit bu ma woyé ci lu mel ni man dama ci sawar rawatina maay waa kër seigne touba kon nak ñu ngi leen ci sante yeneen bu baaxa baaxa baax liggey bi rafet na sha allah yalla ñu yalla may ñukay téwé teewee at yu bari bari bari té lepp lu fi ñaan ak jéego ko fi def ko fi yàlla nañu ko yalla sama borom nangul jërëjëf sante nan bu baax jërëjëf euh, sëñ Mangane wax ji amna solo taxaway bi yalla ko euh, ni tam lima waxan bima koy wax rek xamoo ni sax ni la demee waye euh, mbégte yokoti ni ndax bu fekkee ni gox bi juróom-ñaari journal yi nga xam ni dañuy bind wala dañu dañuy def télé journal xëy na ñoom ñëpp waxtaan wax ci bisu Cheikh Issa bii loolu war naa sonni Sénégalais yi intégré bi nga xam ne war naa dox diggante Sénégalais ak ak ak ak ak ak taalibe bi kon daa mel dañuy waaj a